Aujourd'hui, on a ouvert l'Assemblée nationale à tout, à tout le monde. Parce que n'y a pas de carte de membre de l'Union sportive Anne Belair. Pour Mais ceci, à préciser, di dit dorénavant, pour les futures réunions Assemblée nationale, les gens tiendront compte de la vente des cartes de membres. Si vous voulez beaucoup d'équipes USB, vous avez une carte de membre, am avez droit comme di assister ci assemblée générale yi boo ko defulee boo ñëwee bu ñu la demandé sa carte lañ lay rejeté nga naan assemblée générale dafa def nii wala dafa def ne organisation bi moo laaj loolu dañuy progresser euh, même keroog bi ñuy def euh, pré-AG bi on a donné la parole à tout le monde parce que c' était ça c' était un problème d' pour woon nit ñi ñëpp a ci bokk mais nag à partir de ce moment avec union sportive Hann Bel-Air bu bees comme je le dis données yi dafay changer que nul n'en ignore ñun ñëpp ñu xamandoo ko noonu. tout à l'heure sur le euh, sur le plan financier monsieur Sène je crois qu'il n'a pas noté la vente des cartes waaw pour le produit pour le produit il n'a pas il n'a c'est ah, pas la vente des cartes de membres. c'est différent il faut bien préciser ça. important donc on l'a lu euh, gars pour euh, dañ ko dañ ko wax en français parce que nag waaw yokk ko euh, dañ ko dañ ko lire en français parce que nag dañu nekk ci organisation organisation moo di équipe yi nga xamee ne dañu affilié au niveau de la Ligue de Dakar dafa ay textes yu leen régir texte yooyu moo régir la ligue moo régir la fédération loolu moo tax ñu wax ko en français parce que noonu lay doxee nit nag bu nekkee da nga bëgg a nekk ci lenn da nga ci imprégné yu xam texte yi su ko defee dina la tere ngay wax loolu wax wala ngay def loolu def c'est très important man en tout cas personnellement le capitale connaissance bi ma ci am pendant tout le temps que j'ai participé au niveau de la ligue vraiment sant yàlla quoi xam naa ci lu bari bari parce que noonu rek la quoi jàng Je n'ai jamais voulu aussi intégrer les instances au-delà de l'USB. Je crois qu'à plusieurs reprises, j'ai mandaté quelqu'un pour aller me représenter à l'Assemblée générale. Je peux nommer Ousmane Sissé et Baba Ndiaye. Parce que noonu la demee mais ñi fi toog je crois que ñoom seen xam-xam am na fa ña fa nekk gënuñu leen daañu jéem a àgg foofu. texte yi nag lire nañ ko dañ ko ku ci am amendement loo xamee ne doy la nga wax ko bu nekkee amendement amul ñu adopté ko. fii léegi du sama œuvre du œuvre ñaar nit comité directeur USB bi dajaloon fii keroog le 1 octobre ñoo choisir ay nit ñu huit ñu ne ñu prépare leen assemblée générale defar leen texte yi mettre leen les conditions pour ñu dem en assemblée générale ñu liggéey loolu ñu juboo ci ci kàddu man mënuma bokk ci benn comité ñuy liggéey ñu toog fi ñu restituer ay nit yu jóg ne ànduma ci loolu je bu peux pas le comprendre et je ne le ferai jamais dans vie parce que ñun ñu jotoon liggéey lépp ba bi ñu fi jógee keroog ba démb ci guddi amul kenn ku manifester désapprobation par rapport li ñu liggéey liggéeyaloon gisuma ko personne ne m'est pour ma dire yokkal li defal la et quand on a fini les textes hier j'ai demande à Maguette de le distribuer à tout monde bi ñu ko corrigé ba pare li ñu fi waxaat tey dañu ko fi waxaat te man intellect euh, honnêteté intellectuelle mayuma ma bokk ci benn kuréel ñuy liggéey ñu war a ñu bu ñu pare ñu défendre tout ce travail là kenn génn ci biir groupe boobu ñëw di ko dingat je ne peux pas le comprendre je ne peux pas l'admettre encore que la personne Ablaye Sène il a reprécisé sa pensée il a dit parce que on a mis cette disposition pour réserver ce poste là à des gens de Hann Bel-Air Hann Bel-Air Sport muy présomption boo xamante ne amul fondement et c'est irrespectueux parce que amul lenn ay membre Hann Bel-Espoir yuy couloir fële pour donner un poste à qui que soit bu fekkee am na ku ko wax nañu ko wax kan la quelle est cette personne là à qui est destiné ce poste ou bien ces postes moi je ne suis pas comptable léegi yaakaar naa li gënoon rafet mooy ñu ne membre comité ad hoc bi lan moo tax ngeen def ci disposition boobu on répond mais kenn du ko fi def kenn du ko fi def nañu ko enlever mais ay nit bu ñu toogee xalaat leen ne def ko ci mais demandez-nous le pourquoi on a mis cette disposition-là yokko ci parce que man dañu jàpp ne d'après sa architecture bureau bi yëpp vice-président sport vice-président finance vice-président marketing sponsoring relations extérieures ñooñu ñëpp mun ñu am obligation de résultat par contre le financier bu ñu la joxee xaalis dañu retracer l'argent fu mu jaar la traçabilité de tout ce qui entre comme argent la mairie bu ñu joxee xaalis keneen bu ñu joxee xaalis keneen bu cotisé bu ñu toogee assemblée générale dañu koy leeral man awma les capacités comptables pour ñëw def loolu kii amu ko ñeneen amuñu ko mais y a des gens qui ont eu l'aptitude ay doomu yaraax lañu yu dem jàngi comptabilité jàngi finance yoo xamante ne mën lañ leen jox liggéey boobu ñu liggéey ko mu leer naññ loolu rek moo ñu sous-tendre suñu xalaat du leneen amul kenn ku ñu xalaat ne kii moom la ñu réserver donc dañu bàyyi dañu dañu bëgg a baari ñeneen ñi je n'ai aucun problème avec Maodo Dieng je n'ai aucun problème avec Ndongo naa leen mais pour la clarté encore une te dañu bëgg benn affaire aussi on dañu war a arrêter l'amateurisme nañu bàyyi suñu demee ci association bu ñu nee poste Massamba yëkkati kenn yëkkati bu ëllëgee ñun ñu am des problèmes on a des gens yoo xamante ne xam nañ ne jàng nañu comptabilité xam nañu finance bu ñu leen joxee mën nañ defar ay pièces de caisse bu ñu ñëwee fii nañu indi traçabilité bu leer nañ mais on a dit ces gens là nañu jox liggéey boobu ñu liggéey ko du leneen du leneen mais quant teg ay dit ay ay pensées yoo xamante ne baaxul loolu vraiment duñ jëmale kanam parce que ñun ñi fii ñun ay yara kese lañu fi ñu jëm ñun ñoo ko bokk bu ñu amee équipe muy fubal Baba Ndiaye mooy nekk entraîneur bi ñu sëb dañuy tàccu mais pourquoi ñun ñuy xalaat ne kenn ay on n'est pas la Russie et l'Ukraine on n'est pas deux camps opposés pourquoi ñenn ñi bugg a xalaat ñenn ci ñeneen C'est ça, qui, c'est ça mon problème. man je suis vraiment déçu du comportement de certains gens et de certains propos. Ça me déçoit. Parce que, non, et ça me fait peur. Parce que demain, on, travaille, on ensemble. Si des gens émettent ces gens de propos, voilà mes présomptions, et jugements, ça, ça fait peur. Je à faire ces, ces, ces... comité directeur bi encore une fois. nit du ñaari nit ñooñu bi ñu toogee fii salle bi dañ toogee waxtaane ko. c'était mardi dernier on a fait un pré-travail indi ko soumettre ko ñu ne comité directeur USB dañu ne USB defatuñu police municipale ne on fait le football simplement on prend les acteurs du football ñu jàpp ne nañu indi waa zone les zones qui organisent les nawetaan dañu leen boole ci comité directeur bi ñu ne am na ñu fi nekk ay vétérans lañu qui sont très organisés qui ñoo xamante ne ñu ngi jouer tous les dimanches na leen ci boole ñu ne am na amicale des écoles des encadreurs et des écoles de football ñu ngi fii reconnu ñu gis nañ seen activité nañ leen ci boole. ensuite ñu ne am na des associations yoo xamante ne ñoom ñoo créer woon ñoom ñoo fédéré woon pour créer USB en 2010 muy ASC Mbaxal ASC Montagne 6 ASC Walidane ASC Yaraax ak Olympique Club ñooñu dañ leen ne nañu indi ay nañu boole ci comité directeur bi. ñu ne la mairie de Hann mooy mooy sunu mooy sunu kilifa mooy sunu maire te moom la yaakaar mu jàpp ci liggéey bi nañ leen dugal ci comité directeur bi. ñu ne am na suñuy mbokk ay sportif ay waa Yaraax yoo xamante ne ñu ngi ci àll bi dans la diaspora rafet nañu bool leen ci comité directeur bi bi ñu paree ci loolu. bi ñu paree ci loolu ñu ne nañu fexe ba 33 membre yi ñu def ci comité directeur bi na am une forte représentation. territorial de tout Yaraax maillage géographique bu important on a tenu compte de ça dañ ko bañ sax ba ne même les cooptations bu ñuy def dañ ciy waxtaan entre ñun ñi nañu coopter pour même su fekkee ne am na kenn ñu nekk zone nañu xool seen localisation géographique bu fekkee ne ëpp nañu fenn ñu jël kenn koo xamante ne nekkul fenn foo xamante ne membre zone nekkul ñu dugal ko fa pour que waa Hann Bel-Air gis seen bopp ci comité directeur bi ci loolu la ñu liggéey donc tenir nañu compte ci critères yooyu yëpp ba établir une liste c'est une liste de 33 personnes tànn tànn nag yombul il y toujours des frustrés ça je tiens à vous am na ñoo xam man sama bopp am na ñoo xamante ne gisoon naa ne war nañu gis comité de te gisuñu ko ci mais on a un nombre de 33 personnes on doit décider mais c'est l'assemblée qui décidera en fin de compte voilà pour les membres yi nga xamante ni moom la ñu accrédité muy les zone montagne 6 Asak Yarax Walidane Mbaxal Olympique Club Hann bel Sport AMEF vétéran ak la mairie de Hann a 16 personnes je vous la liste la zone 7A a accrédité Momar fay et Bourgi fay zone 7C Mamadou Mbeng ak Ablaye Mbaye montagne 6 a accrédité Maodo Dieng Asak Yaraax Mamadou Ndom Walidaan Mansour Gueye Mbaxal Diadji Diop Olympique Club Ibrahima Thioy Hann bel Sport Ousmane Thiongan et Bounene Diouf Amef Makumba Diop et Abdou Karim Ndiaye vétéran Badara Sarr Lamine Assef Diallo mairie Hann Bel-Air il a un, un représentant c'est le maire qui le pour les quartiers qui n'ont pas été Donc il y a Salou Diagne vient de Nerlé, Mam Ousmane Sissé de Sanch, Hassan Gueye de Dialawali, Pape Diouf Pipo Kerngor, Biran Faye Forbe, Makaer Sagnan Kip, Kader Gassama, Anne Marinas. Donc on a choisi des individualités aussi, suivant certains critères définis. Mouy Alun Badara Gaye, Badou Gaye, Ibrahim Baro, Pape Baro, Ndongo Faye, Mbake Sek, Ablaye Sen, Abdoulaye Ngom, Aïda Wele Ndeye Sy Demba Sow ak Malick Kane au de la diaspora donc c'est la liste de 33 personnes qui que nous proposons à l'élection à l'Assemblée générale président merci. ñëpp a ko bokk fii ku ci nekk war nga am ay xalaat mais pas xuloo ay xeex ay wax waxul kenn xamul ñun dañu war a defar defar moo ñu dajale fii ku ne am nga ay xalaat. man samay xalaat damay disponible pour wax ko fu ma ne ci àddina aw ma base fu may wéeru fenn fii wéeruwuma ci kenn aw ma ku may groupal ku may àndal wala ku may kii lu ma dégg lu normalu fu ma mën a ne ci àddina dama koy wax aw ma ku ma nekkal fii ci kii ku ne dinaa jokkoog yow ci ànd ak yow ci wax ci loo xamante ni nii lu ay ay parkar loolu ay tappale dugguma ci samay xalaat toujours damay disponible pour wax ko aussi dama bëgg loolu muy leer ba pare dama ne léegi balañ may dugg ci comité directeur bi parce que léegi man dama am proposition wax ko ay nit bu ñu dajaloo ay règlement moo leen di tënk ak ay charte ay nit a koy defar ay xar defaru koy fas defaru koy malaaga defaru ko ay nit koy defar dañu naan d'accord nañ ci lii ñu ne waaw wala d'accord nañ ci d'accord nañ ci ñi ci d'accord nañ yëkkati seen loxo ne d'accord nañ ci adopté ko mu dem mais pas question kat yi kenn nit wala ñaari nit ne nangam nangam ñu ne waaw ñu door ko mu jaar te te ñi des laaj ñu gaj gaj aviam ndax d'accord nañ ci wala déet am na ñum leer dama ne du ñu dugg fii oto jëm Casamance wala ñu jëm benn région ñu ne oto bi ka koy dawal amut permis nit ñaa nga ca biir oto ba di dem amut sécurité dama ne ku yor mbir léegi ci jamono ji ñu toll am xam-xam a ko yor wala ay diplôme yu wér dama ne bu ñu caaxaan te ñu waxante dëgg man mënuñoo dëgg départ fii ñuy may joxob oto ma dem ànd ak yéen dëpp ci ay nit ba mu fees te buñ ma laajee permis buñ ma arrêté du ma joxe permis bu ma mën a constaté bu dara xewee te ñeen waxante dëgg ay caaxaan baaxut réew mii lu ko yàq mooy ay farfarloo ki naxante te dëkk bi nun noo ko bokk dañ koo bëgg a defar te dëgg te yàlla tax buñ koy wax nañ waxante dëgg ku amul diplôme ci finance mënoo yor finance damay wax loolu jàll na ba pare nag donc ci leneen dama ne dañuy waxante dëgg te yàlla tax ku amul diplôme entraîneur mënoo yor équipe wala boo ko yoree it dañ koy tappale rek bu ñu àggee foofu am fu ñu fa àggee di nga arrière dañuy waxante dëgg dama ne comité directeur bi man bon man bon jàll na xëy na defal ngeen ko mais am naa ci amendement parce que à au niveau de Hann Montagne ay borom yi xel a fa nekk rek te Maodo ngeen fa jël c'est pas nag Maodo sama collègue la sama lépp la aw ma lu ma koy jiyal rapproché parce que aussi nit la ku am dynamique la ku nangoo taw ci lépp la mais waroon nañ ci am ay constat waxtaan ak moom wala ak ña ko def ci côté boobu quoi parce que aussi ñun defar la ñuy bëgg man waxuma pour man. mais defar la ñuy bëgg ci côté boobu ci comité directeur bi au niveau de Hann Montagne 6 donc fu ne kenn fay am d'accord nañ ci bañu ñu lool parce que danoo war a pour ñëw pour defar mais dama ne am naa ci amendement ci côté boobu dama ci amul lu ma leer daal ci côté boobu nan lay ko jëlee noonu te bu ñu paree comité directeur bi du ay taala loxo ñu fal la rek nga ne man ma comité directeur balaa génn naa ci mu tëdd sama kër dama ne li charte yi wax ak règlement yi lañ cay santaane ku ko mënu ngir yàlla ak yonent bi jëru nga buñ ca dugalee booye boo nga génnaat parce que soo ko defee boo war nañ ci def ne ku ci kuñ ci fal nga def ci deux ans trois ans te peut-être cotisation yi wala nangam defuñu ko ci bu ñu la waree génne dañuy génne rapidement wala war a waaw salaamaaleykum mbooloo mi euh, merci président merci président xam naa ni man euh, ci comité directeur bi ñu ci wax dam ci am benn xalaat mais damay waxaale ramasser parce que duma jëlaat parole ci comité directeur bi laa ci am amaan mbaa mais du ma jëlaat parole man bu ñu toogee keroog bi ñuy waxtaan dama am gis-gis bi ma ci def mais balaa ma ciy dugg d'abord comme ni ko maire mataar waxee koo fi gis espoir aan moo ko fi indi comme ni nga ko waxee le maire mi nga xamante ni dañu ñëw ci locaux yi def ko fi tamit la mu ci doon xalaat Matar xam na gis nañ ko fi di nuyu grand tafaso bu baax a baax li mu ci doon wax gaa ñi tenir nañ ci compte kon moom ñaari observation la ci amoon que bu leen fàtte ni olympique club Boucar Thioye moo jël récépissé mettre que à la disposition de USB ba tey lii am ak lu ci manti def delloo njukkal dafa baax beneen bi mu ci doon wax biñ ne aseg yaraax am na leneen am na mais bi USB amee def ci am groupe de gens ba nga xam ne El Hadj Sarr da leen dénkoon ñu yor ko ñooñu nañ leen delloo njukkal fàttali leen te je pense que niñ fi waxee Ablaye Ngom bi muy def ñaar yooyu yëpp dégg nañu Olympique Club Boubacar am ku mu accrédité beneen bi ñuy wax ñoom badu ñi nga xam ni ñoo yoroon ndongo mbay ñu dégg leen si kon moom ñaar yi mu amoon ñun buñ ko déggee fii te ñaar yooyu kese la ci amoon beneen bi nga xam ni dama koy wax aussi mooy assemblée général bi nga xam ne tey moo ñu fi dajale man ma yor président commission jeunesse sport muy Matar muy Mbàkke luñ ma mas wax mooy fexeel réussir assemblée général USB dafa bokk sa bilan kon tey liñ fiy def lu ci bari dafa ma soxal a soxal ba foo génn interpellation bi benn la woon mooy baax naag baaxul waxuñu ko kañ la ñuy def AG parce que AG la ñuy wax moo bloqué lépp ñu nekk ci institution nekk maire yi ba nga xamante ni xaalisu contribuable bi moo ciy dem waa aan ñu toog trois ans kese la la mairie subventionné USB waxuñu subvention USB maire yi moo ko yor da ciy participer rek parce que xam nañu équipe la muy def mais ñu def trois ans kese li coow li di bari la maire yi 2009 ba léegi ñetti année la ma subventionné conseil tey seen kii ne tant que assemblée générale amul du ñu yëkkati un franc di ko jox USB tant demul assemblée général te ñu nekk ci maire yi ba xam ni mën na génn ay moyens yu conséquents accompagner USB. je pense que tey bu ñu fi toogee di waxtaan benn objectif la ñu am assemblée générale lu mu metti metti lu mu wax wax na egg parce que dëkk bi age la ñuy xaaree xaareewuñ ñu yeneen yi ñu fi wax yooyu yëpp lenn la benn bi ma ci am bi ma fi mujjee toog dañ doon wax ci wat waxu vétéran yi ñu ne woon dafa am trois clubs vétérans yi nga xam ne ñooy tase ca terrain ba chaque dimanche ñu ne kenn ku ñu ne bëgg nañ kenn ñu copte ko ci comité directeur bi def ko ci bi ma déggee dama dégg ñu ne Alaaji Sarr ci vétéran yi Lamine Assef ci sama jàpp gis-gis mooy afi indi na kenn ay envillage indi na kenn mais ñu nag euh, vétéran yi nga xam ni waa Wally daan ñoo fa nekk comme dégguma leen te dañ ko waxtaane woon fii peut-être ñoom jotaat nañ leen am na keneen ku ñu wax ci leneen bëggoon naa comme dañ ko waxtaane woon toog dégg te dégguma faneen fuñ ci changé loolu rek laa ci bëggoon am amendement laajte loolu je vous remercie euh, salaamaaleykum waaw man maa ñëwaat boo gisee ma defoon sànq proposition ci élargir membre nombre de membres yi nga xam ñooy nekk si comité directeur bi parce que problème yi mel nii laa noo xalaat parce que bu dee comité directeur bi da nga ko tënk ci 33 nga tenir compte ci ASC yi nga xamante ni ñoo nekk yarax yëpp ak ñi nga xamante ni ay personnalité lañ ay cadre lañ war a bokk far force ci ci ci ci association bi da ngay dépasser largement 33 personnes te kii li wax nii man en trois laa dëkk donc bu ñu limee ASC yi amul benn membre boo xam ne lim nañ ko mu représenté en trois te dëkk boo dem muy montagne jaarawaali en trois ki nga xamante ni moo am légitimité représenter dëkk ba mooy président ASC bi parce que kooku rek la waa dëkk bi dajaloo toog ne kii mooy jiite suñu ASC te ji football la ñuy wax kon pour man li ma proposé woon sànq moom lay réitéré pour man président ASC bu nekk dafoo war a am siège pour man léegi nag ñi nga xamante ni nii parce que ku nekk xam nga ki nga xamante ni nii moo la gën a xam am na ñoo xam ne ay cadre lañ ay personnalité lañ dañu war a am siège ci membre bi loolu mag ñi ñoo koy xam ñi nga xamante ni yàgg na yëngu ci football ñoo koy xam kon donc pour man na ASC bu nekk am siège sinon kon ku nekk day yëkkati loxo bu ñu ne ku bëgg wala ñu ne ku bëgg a nekk bokk ci comité directeur ñëpp yëkkati seen loxo ñu tànn. di remercier le bureau sortant di remercier aussi encore. Euh, Euh, comité ad hoc bi def na ngeen liggéey bu am solo euh, man dama bëgg ñu dem ñu xam ne ñun ñëpp benn dénominateur commun la ñu am muy US Hann bel mooy suñu dénominateur comme ñun ñëpp dañ def loolu suñu bopp mais concernant 33 euh, membres yi man dama bëggoon xam si yan critère lañ ko defee merci beaucoup ñi si nekk si salle bi ñoom ñëpp laa xam sans exception mais damay jël ñëw rek teg ko si loxo président mu tasaare ko si ñëpp deuxième kii bi deuxième kàddu bi kàddu ngërëm la parce que li ñu fi ñuy fekk si président vous êtes en train de faire une très bonne assemblée générale c'est-à-dire coow il faut moom ci mais je vois que même la présidence mi ngi tenir en main assemblée générale léegi nag gars yi xam nga li am ba des partement leen ñu dini ñoom congaan def nañ ko ñoom li am ko rek xam mooy la mbir bu ko ñëpp bokkee dañuy wóolante c'est-à-dire USB dafa yaatu yaraaf yëpp la il faut ñu wóolu ni fanweeri nit ak ñett ñoo koy dirige gis naa football entre le joueur et le président y a un métier y a une fonction ku bëgg a utile pour USB nekk si biir salle boo nekkul président nekkoo joueur nekkoo secrétaire nekkoo trésorier tu peux être utile pour USB c'est-à-dire gars yi dara jëlu fi xëccoo dara jëlu fi xiyoo dara jëlu fi ŋaayoo xamuñu ku mel ni man ak Mbacke ban chance la ñu am on est entre les deux générations ñaari génération yi nekk si kaw gàncax gi mooy ñoom El Hadj Sall ñoom dañuy xoole xëy na xale yi jiw parce que dañu leen di xale yi dañu nekk si kaw dañuy séntu ñoom El Hadj Sall ak ñoom René Ndiaye mais ñun ku mel ni man ak Mbacke dañu nekk dañuy nekk si ñun ñoom mooy man boole xam boole bi mooy lan gars yi fula j'ai dit tout à l'heure en train de germer les la division bi nga xam ne li ñu bëgg ñun objectif USHB yéen vous êtes en train de semer les germes de la division dañu koy plombé du dem alors que aujourd'hui toutes les ressources sont réunies pour que équipe bi dem moi je suis membre de la fédération sénégalaise de football je suis vice-président de la Ligue de Dakar premier vice-président je la CAF li ma jàng fii laa ko jàng si ñi nekk si biir sànq ça veut dire fi ressource bi amee ñu war ko utiliser ngeen bëgg koo xajamal dañuy bañ léegi am c'est-à-dire dal leen dal leen take it easy fii jara jëlu fa xëccoo jara jëlu fa xiiroo jara jëlu fa ŋaayoo il a dit c'est-à-dire da ngeen voté léegi test boobu man juguma da ngeen bu ko defee voté des tests ni nañ yem à 33 on va respecter la réglementation dañuy am 33 mais nag comme a dit le président dafa am ay pratiques moi je suis membre d'une fédération sénégalaise de football bi nga xam ne bi ñuy ou bien on devait être 27. Aujourd'hui, il y a 35 personnes qui siègent au comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. 31 membres et 4 techniciens. mais dañu âgé bi ñu âgé ba pare ñu 27 la ñu war a am yow mais âgé jox leen ñu mandat ñu élargir le comité exécutif ñun yokk leen si 8 âgé bi foofu la yem dañuy jox mandat ñu da leen si yokk 8. ñu dem léegi 27 la ñu ne dañu si yokk 8 dem à 31 mais faites le même procédé. 33 000 mais d' accord ni ngeen d' si nombre bu ngeen di yokkee bu ngeen si nombre bu ngeen di yokkee si ngeen d' si mise en œuvre moi je suis contre bi def naan ko bëgg a bind na bind ñu yokk non 33 personnes yooyu Mbacké laa di tout à l' heure ngeen yaram ñëpp xamante nañu xam nañ ko mën football xam nañ ko mën tey xaalis def naa sax man maa fi dàpp tey xaalis léegi bu ngeen demee fàtte woon nañu telle portion nañ ko boole telle personne ressource la fàtte woon nañu nañ ko boole ba muy set ñu ngi indi set yooyu proposé nga en comité de à la prochaine ñu validé ko mais pourquoi di ngaay cest à nii président man loolu ñu tudd ay tur tudd ñu turu daara mënu ma ko comprendre parce que tey lii nii yëpp nag bu amee ci saalam la amee suñ demee ba USB am coow li moo fi nekk de mais ci saalam la amee fa lañ ko doon waxtaanee njëkk songu mbakk Sekk ci ASC Yaraax bu réussiroon tey duñ toog sax di wax waxu USB ASC Yaraax lay nekk réunion boobu yaakaar naa yaa ko présidé woon bi ci topp dimanche matin ñetti génération nekk foofu ñu jox ñaar ñu siège jox ñu beneen bi man mënu ko comprendre beneen bi si topp kaaw tableau ferraille waaw parce que bu ñu ni ñu départagé zone yi tey fekkee ni jàppoo am na ku ko représenté muy président zone bi ñu demaat montagne Maodo Dieng di ko représenté ci club fondateur yi mais tamit yaakaar naa ki fay ñëwee membre feeraay la war a doon pour mu am équilibre kuy dund football tamit pour ñu bañ ko fàtte parce que tey ñun ñu nekk ci terrain bi xamante nañ ñi dund football ñu bañ a fàtte ni diw mii wala diw mii ñu xoolee nag borom costume ak borom cravate dañuy juum borom costume soxla nañ ko soxla nañ borom cravate soxla nañ ay homme de terrain parce que affaire bi fa ñu nekk dafa metti fa ñuy bëgg a yóbbu équipe bi dafa metti ku fi toog nag yaakaar ni affaire bi boo amul compétence bi ak yooyu man yooyu dama koy dàq parce que ñi fi gën a feñaak mooy ñi jàng sax ba am diplôme fii ñi amul diplôme sax ñoo ëpp mérite parce que ñoo nekk ci terrain bi di rey seen bopp ñun dañuy détourner mais duñ détourner kenn kon ci loolu laa bëggoon ñu bàyyi ci xel mooy groupe USB bi fi nekkoon su may wax ne demul forfait général mooy ñooñu dañ leen war a copte ñoom ñëpp dugal leen si parce que bi dara amul xaalis amul dara ñoom ñoo fa nekkoon di rey seen bopp di ci ànd ak dimanche matin yi di ci ànd ak équipe bu nawetaan yi ñenn ñi li sama frère Pape sa wax tamit dama koy d'accord parce que xel day fatu mais moom xëy na suñu waxtaanee après mën nañ ko dugal wala mën nañ dugal koo xamante ni ca koñ ba la dëkk ok mbooloo mi bon maa ngi rafetlu jataay bi parce que lii yaakaar naa ne yaraax ñun ñëpp lii yàgg nañ ko sàkku parce que li waral bés bi moom am na ci part bu mu ci lu rëy parce que bu nekkoon nit ku rëy wala nit ka nga xam na ni amul esprit de dépassement defe naa lii tey du am parce que lu ne wax nañ ko fi lu ne dégg nañ ko fi mais yaraax nag mooy yaraax beneen côté bi may wax mooy que ne par rapport ak comité directeur bi parce que 33 membres la wax 33 membres yi ñun am nañ euh, suñu génération dimanche matin booy xool mat nañ quarante personnes te fu ne lañuy jóge ci Yaraax ñëw bokk mënuñu am benn représentant fii loolu dina ma jaaxal trop beneen bi mooy ñun 10 ans ñoo fi nekk USB di football yi kenn masuñu forfait di yóbbu équipe bi fu ne dem nañ ba yeen xeex bu metti xaw nañu fay escanté Ngor Yoof fu ne dem nañ fa di dund lu metti ci 10 ans yi pour ñu mën a tey bés bi mën a taxaw parce que 10 ans yi mu for pasuñu ñu forfait daaw jeune nañ 15 match daaw jéeg 27 match chaque jour ay nit ñu ngi doon mobiliser wu di rey seen bopp guddeeg bëccëg man xaw ma woon ne yarax am na mbooloo mi ah je suis ma suma xam ne mbooloo mi bëggee nañ ni sport nii yarax mosuma ko gëm parce que dem nañ football fu ne doon ñu gis kenn da ngay gis doo gis kenn parfois da ngay xool gis Pape Bara rek ci kaw tribune tey nag mu ñëw fii tey ñu defar comité directeur ñu noon doon xeex dix ans yooyu ñuy ànd di dem fu ne pour yarax bàyyi suñu liggéey ay responsable lañ comme fii ñu fi nekk ñëpp ah, dañu yoro njaboot di xëy fekk ay responsable fa ñuy liggéey di ko fa bàyyi di teg ñi ñu xamee ñu ko fu yarax di footballé man suñu bureau dañ maanaam xanaa da ngay footballati dinaa fexe ba génn dem bu ma ñëwee tey gis 33 yooyu gisuma ci ñooy ñi ma doon àndal di xeex daf may jaaxal daf may jaaxal trop

comité directeur bien sûr y a pas problème t'inquiète pas commité directeur la ñuy wax dañuy fal comité directeur ñu def proposition ñii gis ci seen bopp ñii gisuñu seen bopp man yaakaar naa ku bëgg liggéey ci association wala ci union sportive de Hann Bel-Air mën nga xaar ba ñu teg commission yëpp nga ñëw xool fu la neex fi nga xamante ne mën nga fa am njëriñ nga dugg fa liggéey ba ñu ràññee la nit nañ ko bañ a fal poste ñu fal président mu liggéey bañ gën koo ràññee président ba kon waruñu toog fii di wax ay xëccoo pos gis naa sama bopp gisuma sama bopp ma ñëw si Badou Gueye li mu wax dafa am solo ISB doon dem di football doo gis kenn ñi ñëpp fu ñu nekkoon dañ doon xaar mu defaru kon yàlla mu ngi koy defar dañuy sant yàlla cacaan nag li mu wax am na ci raison dama ciy revenir un peu parce que gis nga ñun 2010 li ñuy daj ba 2022 ñun xam nañ ko bu ñuy négocier di waxtaan di naxante pour ñu ñëw fii kon duñ fi nekk di relater le passé di wax li nga xamante ne ñi doon liggéey def nañ ko ba pare bureau bi dañuy bàyyi ñi nga xamante ne ñoom lañ dénk ay mag lañ ah, ay responsable lañ ay kilifa lañ xam na ñi topp seen ginnaaw mooy ay trésorier doo rendre compte boo paree loolu moo fi amatul loolu am na àdduna sax moo tëddeetul noonu mun nga dénk xaalis ba pare nit ñi toog fi mu toll nii ñëpp ay lijjanti mën nañ fal benn poste mais ñëpp lay lijjanti xaalis bi nekkatul la ngay dem ñu jox la ko mais en mais nga dugal sa poste dem loolu moo fi amatul loolu amatul. moo tax kon boog bu ñu wax ay trésorier du rendre compte trésorier boobu kon bu lekkee xaalis bi ëllëg kon boog xamul li koy xaar ndax tey fii comme ni mu doon amee daaw yes dem fee jox leen même fee sax boo gisee euh, waa ligue li ñu mujj def mooy dañoo ne léegi équipe yi dañuy am compte ñu ni xaalis bi maanaam pour mu am transparence ak traçabilité kon boog am na yi nga xam ne bu ñu koy wax yooyu mënatul nekk parce que président duñ ko fal mu bàyyi trésorier di def nu ko noonu mu toog di ko seetaan loolu mënul nekk ku nekk dina ko interpeller ku nekk xam nga role bi nga war a def te di nga ko def moo tax comité directeur bi ñuy fal nii nañ leen xool ñi nga xamante ne mën nañu fa amal njëriñ waxuma ñi nga xam ne dañ leen di fal comme bee passé bu ñu bëggee AG kenn du leen gis demal nga réunir comité directeur ngay wër un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans pour ñu AG président bi ne du fi jóge ñu naan loolu la ñuy bañ mooy li ma waxoon sànq rek laay waxaat loolu la ñuy bañ nañu indi ay textes yi nga xamante ne tey maanaam ku jël. benn mandat ñaari mandat maximum xajal sa morom. ba assemblée générale bi am ci jàmm ak salaam ñu mën dem ci yeneen ci yeneen liggéey yi pour comité directeur bi waxuñu 33 yi. am na ñoo xam ne war nañ ko mën a yokk ñu yokk ko mais 33 yooyu après ñoom ñu fi nekk war a liggéey war a xalaat ban façon la jaay carte de membre ba ñu gën a yaatal am na ko wax pour les ASC. xëy na am na benn façon bi ñuy jaay carte membre ay les présidents des des ASC dinañ ci ci ci euh, comité bëri na ay possibilités yoo xam ni après lay mën a ñëw mais daal ñu comprendre que ni pour terminer benn moment boo xam ni gisoon nañ ñi kat la commune de Hann bel mi ngi doon représenté ci ci football Sénégal dignement dafa am yoo xam ni pàcc yu fa daje woon la yu pare mooy amoon nañ ay footballeurs yu baax mais dem amoon nañ ay dirigeants yu baax loolu moo ci loolu moo taxoon mbir bi mën a dox kon nag ñun nañu fekk si xale yi actuellement vraiment xool seen avenir esprit de sacrifice la ñuy woote pour mën taxawal ISB bi mooy que des fois nga lii yaa moom ñu jël ko jox ko keneen nga xool ni li muy jur ca ginnaaw tax war a tax nga sacrifié nga sacrifié ndax loolu man daal foofu laay woowee ñëpp que nañu comprendre ko am confiance ci nit ñi. du comité directeur doxul on était 31 doxul zone vous êtes 33 dans le comité directeur ñëpp du ñu ñëw tey koo ci boolewul mu indi problème AG bi fi mu war a yem mooy élection du comité directeur élection du président et des commissaires aux comptes ensuite prochaine réunion ñooñu ñoo war a defar bureau c'est-à-dire ku bokk ci comité directeur bi tey bu ñu woote waatee danga nga war a ñëw ñun li ñu soxla mooy USB bu am autonomie financière loolu li koy joxe mooy ñu am cent personnes yu cotiser cinq mille par weer chaque weer nga teg cinq cent mille de côté balaa budget maire yi génn fekk am nga quatre fois cinq cent mille muy deux millions nga mën fay sa affiliation mën a fay entraîneurs yi salaire yu baax nga booy dem terrain nga mën leen faj ku nekk su ñun pare na pour loolu moo tax ngeen bàyyi seen samedi matin ñëw pour man bu ñu dàq kenn c'est le darwinisme après ñi amul jot wala amuñu nangam naturellement ñooy dem toog et on aura notre ci cotisation bi ci présence yi ba tiers sortant ñi war a génn ëllëg ñi dàq absenté la ñuy génn te bu ñu ñëwaatee assemblée générale duñ leen dugal loolu mooy wax bi mais tey mais tey wa wa laisse-moi laisse-moi me terminer c'est-à-dire nous nous nous servons des statuts mais nunu ne nous ne nous ne servons pas des statuts statuts ay outils yu ñuy liggéeyee la pour bu ñu amee différence suñu biir mu atte ñu mais ñun comme dañuy defaraat gars yi dañoo restreindre def ko juróomi club club bu nekk ñetti nit mu nekk 33 doxul ñu ni nañu yaatal y a 70 mille personnes à Yarax 70 mille moo nekk ci liste électorale yi. mais bu ñu jëlee cent le quota est très petit encore gars yi le quota est très petit après ñooñu ils vont s'écrémer et faire un bureau de quinze un bureau bu yomb mais ñëpp dañ la bëgg wax damaa bëgg a bokk ci comité direction bi amoon mon avis président nañu yaatal képp ku bëgg a bind si ñu bindu la nga xam ni la war mooy ñëw réunion cotiser xalaatal équipe bi loolu ñu may ko yaraax waa yëpp Hann bel waa yëpp ñu may leen ko bu ñu demee nag ci bureau bi ñun bu ñu toogee suñu biir ki dàqtee xaalis xam nañ ko ki gën a jub xam nañ ko ki dàq te sport xam nañ ko ki dàq rey boppam terrain xam nañ ko ñi war a ñëw médical xam nañ leen mais pour un comité de direction di wane yoon bi plus on sera nombreux à le faire mieux ce sera te kenn du ñubbi ak frustration képp ku bëgg a bokk daal su ma sañoon maître qu'on qu'on qu'on change la tendance qu'on avait parce que 30 on s'était pas sorti de sa waaw mais nu sommes en assemblée générale si l'assemblée veut venir sur un point on... ça ne dérange pas pour dire merci à l'Assemblée. C'était pas facile. 13 ans. On a tout vu, on a tout entendu, mais on a tout endossé. Parce qu'il était de notre responsabilité d'aller, d'amener ce bateau à bon port. Bon an, bon an, bon an, bon an, mal bon an, mal Dieu nous avec tous les équipes. ils sont survenus devant nous alhamdulilah rabbi alamin mu jëwuñu pour bi mu réer li ci amoon solo ëpp ci solo mooy équipe bi bu ñu koy joxe moom am kayitu juddu on l'a fait ñu kayitu juddu parce que depuis le début ñu bari woon nañ ma tous les médias locaux m'ont demandé de parler j'ai dit je parle pas le linge sale se lave en famille loolu mooy dénkee doo bëggatu du la interpellé nga wax defewu noonu demewu noonu te ku koy defit doo doo kilifa yàlla dimbali na ma dimbali ñi ma àndaloon ñu sant ñëpp nag gërëm ñëpp parce que aussi ku ku ku boot bu xaj boo la ku nanguwul ñu wax sa jiitu bul jiitu fa ngeen jëm ka fay nekk na ko ñëpp jàppale feebaru Yoff mooy jiital la bàyyi dafa yow kenn képp kese tu tu tu à des réunions ils ne viennent jamais bëgguñu réunion bëgguñu réunion bëgguñu compte rendu parce que ils ne sont pas administratifs et c'est pas bon évolution moo toll foo xamee ne lii lépp lu ñuy def ci àddina dafa avancé tout à l'heure je disais un certificat un un un un secrétaire administratif qui ne maîtrise pas la machine foofu laa yem. moo dox. jamono moo dox am na ay postes yoo xam ne dañ koy jox ñi koy yellool ñi ko mën na liggéey parce que ëllëg a tax il doit rendre compte Mbacké bul sonn daanaare yàgg tu es l'un des personnes que j'estime le plus au monde bilaay comme tu dis tu es un de principe moi je suis un homme de principe. avec les principes dañ koy xeex ba mu jeex tàkk. monsieur Angale on s'est tout dit on s'est tout dit c'est normal. c'est normal on s'est tout dit et c'est normal noonu la. j'ai aussi l'objet d'une plainte au niveau de la brigade de recherche en tant que président du DSB. j'ai répondu parce que c'était ça. sama doom ma baax ah, sama doom la. mu ngi ba mu ko defee xam naa ne sama doom la. ma dem de fañ ma wooyee ma wax fa dama far wax mais yàlla ay mbiram parce que dafa am décision boo xam ne je vais lui dire ici je l'avais pris devant Dieu et devant les hommes que man El Hadj Sarr tant que je suis vivant du ma tenir AG USD que j'ai un à défendre. y a des choses yoo xam ne dafa war a yem fa mu war a ko dépassé day jéggi dayoo parce que j'ai une famille j'ai des enfants et il me faut laver mon honneur avant de remettre ce flambeau mais y a un déclic Malick Kane Malick Kane mu ngi ci toog ci panel bi mu jël li nga xam ne moo gën a secret ci doomu aadama son bulletin médical il a mis ça dans le panel c'était dégueulasse dafa salté la mu fa nekkee xam naa ko depuis mais est-ce que tout le monde devait savoir ça par le panel parce que on l'a écœuré on l'a poussé à bout et c'est pas bon nous sommes des humains nous sommes des frères am na yoo xam ne mënu fi am tëdd fi am allah kulli la deuxième chose qui m'a poussé à faire ça Ousmane Thiongane ici présent je suis allé le voir en toute responsabilité parce que man bi ñuy def yëpp le point focal xam naa ko Hann Bel-Air Sport avec tous ses démembrements c'est le football qui les intéresse moom de mu la intéressé je suis allé vers je les ai facilité la tâche c'était de mon devoir de le faire parce que l'histoire retiendra que Alaaji Sarr la ko la la yàq bokk ci waaw yéen a ko moom yàllaa ko moom tey laa leen koy jox parce que je le veux et avec un cœur vraiment rafraîchi quoi donc sama xol ma en tout cas à la majorité absolue Ousmane Thiongan a été proclamé à partir d'aujourd'hui président de l'Union sportive d'Angola. ak sa sant. Oh. maa ngi nuyuwaat ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant am mbégte bu rëy tey parce que yaakaar dafa fort lii nga xam ni dañu tourner la page de l'USB équipe bi fi nekkoon ñu choisir beneen équipe man yàlla def ngeen jiite ma yàlla na suñu borom jàppale ñu. ñu ngi sant bu baax monsieur le maire de Hann bel monsieur bi nga xam ni Makhtar Diaw fii moo ko fi représenté di sant le président sortant El Hadj Sarr man de li may ñaan mooy ñu defal ko benn standing ovation sant ko gërëm ko ci liggéey bi mu def. parce que dafa am solo li mu def mooy pendant dix ans metti na neex na yore équipe dafa metti yéen ñi yore équipe parce que fii bari nañu yore équipe xam nañu yore équipe li ci nekk mais bàyyi nañu loo xam ne pour l'histoire du dañ mooy këyitu USB tegal nañu ko ci table ji donc kooku c'est historique monsieur le président ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la gërëm ci loolu bu ñu gërëmee nag le président El Hadj Sarr mooy bureau sortant bi fi nekkoon ñoom Mbacke ngi fi ñoom Matar Diaw ngi fi ñoom Ablaye Ngom mi fi nekkoon ñi ngi fi ak ñeneen ak Maodo Maodo Dieng ku lim da ngay juum sas bi ñu am nag ñun nga xam yooyu nouvelle équipe bi mooy redresser USB teg ko ci raay bi fexe ba projet bi ñu am fii ak juróomi at nangam ñuy dégg équipe delitu Hann Bel-Espoir ci kaw ci kanam fi ñuy dégg ñëpp loolu moom mooy xeex bi te loolu nag du xeexu benn nit xeexu ñëpp la ñu ngi sant bu baax métti woon na trop du ma waxee maa ngi koy wax demb kii badu du ma waxee Badou parce que boo waxee USB yi faut nga tudd badu badu gay xawma anamu lu nekk daj na ko ci USB lu nekk daj na ko ci USB parce que maa ngi koy fàttali ne y a quatre ans xaw ma cinq ans Badou Mbaye juuf Baba Ndiaye Tidiane ak nangam yu bari lu nekk sensibiliser nañ ma ko ci USB ak Daara Jaw sunu grand Daara Jaw ma ne leen lu jot rek dana yomb fi ñu toll nii talaguma ko talaguma ko doxal leen mais maa ngi seen wet moo tax USB bi ma ci duggee yàgg na El Hadj xam na ñi may wax léegi xam na du tey de façon ci texte ci ay kayit laa dugguloon USB mais yàgg naa USB yàgg naa USB yàgg naa aseg yarax bi nga xam ne Mbàkke moo ko jiite xam na ma xam ak yeneen équipe yi nga xam ñoo fi nekk man nag sama àddina yëpp football laa gëm football laa gëm football laa gëm football laa bëgg moo tax bu ñu ma wooyee ci lii bu ñu ma wooyee ci lii ne ma ñëwal bokk ci ñuy diriger parce que du man maay diriger man kese ñëwal bokk ci ñiy diriger footballu yaraax yóbbu ko si kanam footballu Hann bel yóbbu ko ci kanam dama ci sawar dafa may jaral lu nekk nag à partir d'aujourd'hui nag na ma jaral lu ma defoon ci lu tuuti danaa ko gën a yokk danaa ko xeeb ndax te le maire euh, te boo ko dégloo baro mas nañ waxtaan mu ne ma ah en tout cas daal sas la ñëpp AG bi la ñuy xaar li xew ci AG bii nag ku yàgg dem ci AG gis nga yu gën a metti yi Cissé wax na ko léegi suñu xarit suñu xarit sunu fi ñu du wax xajul fii parce que booy réunion di AG ba am un membre de la fédération bu toog da nga war a sant yàlla te muy un pur produit de Yarax loolu mën na nekk feneen mën na nekk ci keneen si ñun football yarax nag daan nañ ñu dégg fu nekk ana ñoom am di fay ana ñoom Issa ana ñoom Blindé ana ñeneen kenn déggatul am actuellement nii booy bëgg nañ loolu nañ leen jàppale ba dans cinq ans dix ans fu ñu tuddee équipe nationale n'importe quelle catégorie ay doom jóge an beleer nekk ci biir nekk fa titulaire